bi maa ngi lay laaj xamna lu sa mam waxon waye man gëw ma ko lan la sama mam waxon mu ko sa ak dunya sidul mu'min jannatul kafir kep ku ko gëm adduna sa kaso la waaye nag aj ak ku ko gëm sa kaso la ku ko gëmul sa aljana man mi gëw ma sa mam waye ñetti fan ma ngi ni di repp aw ma dund yow yaa ngi ni tay rek nga nga repp am li yeb nga tok yow ak say ngeen di lak yap di lek te yow fi moy sa aljana man fii mooy sama yow fii mooy sa kaso man fii mooy sama ajjana ali zeynal abidin ne ko law raayta maqadaka fi naari yowma alqiyama la alimta annaka al yowma fi ljanna soo gisoon sa jotaay ca safara ñu lay lakk di la nandal dét ak deret xam ne yow tey si ajjana nga nekk walaw raayta maqadi fi ljanna fi sijn soo gisoon sama jotaay sa ajjana xuurun iinu ya nga gis déegu meew ya déegu sàngara ya déegu ndox ya déegu lem ya da nga xam ne tey ci kaso laa nekk arrahmaani rahim yàlla la yàlla ba mu ne sant leen ma man yàlla ñu ne ko pourquoi mu ne maay borom bindee ko maay rahmaani maay rahim bàyyi loolu rek waroon tax ñu jublu ci sant yàlla waaye taxul ba léegi ñu jublu ci sant yàlla wa qalilu min ibadiya shakur yàlla ne maliki yow diin maa moom bésu pencum yàlla li ngeen yëngatu fi yépp ci yëngatu bés dana ñëw ñu dajale leen ñu àtte leen قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم بس بو سنيو تا ادم با بس كنتم يالا كيب يالا موسان ساك داغا تيو ني اتل كاموم بس بو بس كو ماك كو كاي تخي دي تخي كاي كاي تخي دي تخي دي فريق في الجنه وفريق في السعير كاي يلي بس بو بس بو كوموم مالك يوم الدين من يالا ما موم بس بو بايني لو ريك ورانا تاخ ني سانت يالا واي نك بايني دا بليك بليك تاخو ني سانت يالا kon yàlla nañu yàlla def ci gën a néew sama sëriñ Cheikh Abdoulaye Dia moo daan wax toujours yàlla nañu yàlla def ci gën a néew te yàlla nañu def ñañuy weddi yàlla bu ñu yàlla def ñay weddi yàlla nañu yàlla def ñañu ñañuy weddi yàlla bu ñu yàlla def ñay weddi bàyyi nee ne dafa toog xaatir est-ce que moom ak ñi ànd ak moom ci àjj ci àjjana lañ jëm wala feneen fu ci àjjana lañ jëm mu ne ñaari laayee ñoo ko tontu léegi wax bi may wax lépp ci benn benn jotaay la ko bàyyoo mu ne aaya bi ko jëkk aaya yi ko jëkk a mooy awwalu suratul baqara sa njëlbéenu baqara ba yàlla lim na fa ay melo muttaqiina mooy ñu ragal yàlla alladina yumina bil xayb mooy al imaanu bil xayb ña nga xam ne dañuy gëm lañ gisagul ak yuqiimuna salaata mooy iqaamu salaata mooy saxal julli ñaay saxal julli wa mimma razaqnaahum yunfiquun ak ña nga xam ne lépp lu ma leen jox dañ koy delloo yàlla joxe ko ci jaamu yàlla yi yàlla ne ne ulaayka ñii ala hudan min rabbihim ñoo ngi njub ci seeni i borom ñoo ngi seen njubu borom ulaayka humul muflihun ñoom ñoo ñi texe ñi nar a duggi ëllëg ajana bàyyi nee na ba mu xoolee melo yëpp fekk na moom ak ñam àndal ñoo ngi dund melo yi taqwa moo ci ëpp solo mooy ragal yàlla li tax yàlla jiital ko du caaxaan ndax koor ñu nekk nii ak li muy jafe-jafe yàlla def na la allakum tattaquuna yéen a ngi koy def ngir ngeen ragal yàlla ndekete li nga toog doo lekk doo naan yëpp yàlla ne li ci out métit gog yaa ngi ci ben maqam go xamné taqwa la tud te cheikh Tidiane nee ne maqaama la duunahu xartul qatad wa tafattul akbad wala yunalu bi basil amwali wal awlad maqam la bu jafé jot képp ko yàlla dëxëñ ci ragal yàlla raw nga kenn du la gën motax abou aw bakkin bokk na ci lim gëné moy ragal yàlla ba bàyyi nee ba muy firi awwalu sootil baqara alquran def ne alif laam miim ñu ne ko loolu yaa ko xam suñ koy firi da ngay jël suñu àdduna yëpp du jeex yàlla ne zalikal kitaab téere googa laa ba fii sikki amu si hudan njub la lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla nekkati alxuraan njub la ñeel ñeenti façon nit ñi ragal yàlla ñi gëm liñ gisul ak ñi saxal julli ak ñoo xam ne luñ am joxe ko ci yàlla alquran njub la ñeel ñi lil muttaqina waaye ba mu leen di lim lam njëkk a tàmbali mooy muttaqina mooy ragal yàlla nee abu bakrin moom la yàlla di junni ca laay ba wa say jannabuhal atqa dana moytandil safara ka gën a ragal yàlla moo tax abu bakrin bañ ne moo gën ci xeetu yonent yàlla muhammad ba yonent bi nee ne maa taxta qubbati samaa'i ba'da al anbiya'i afdalu min abi bakrin ci ron mbaaru asamaan bi amu ci ku gën abu bakrin lañ xam ne kon moo gën a ragal ndax ki gën a ragal yàlla mooy ki gën inna akramakum inda allahi atqaakum bàyyi ne laaye gi ba koy yàlla di wax bam ne muttaqina borom xam-xam yi aw Aboubacar lañ fay junj kon ñu mel ni aw Aboubacar ñoo ngi ci bàyyi ak njabootam ndax Baye nee na gis na ñeenti yëpp ñoo ngi ci moom ak ci njabootam mu wóor ko ne kon bés pencum yàlla àjjana la jëm loolu bichaara la di bàyyi ko wax kaset yaa ngi fi nekkul wax joo xam ne dañ koy wax ni di faraatu nee ne aaya ko tontu aaya alxuraan ñaar la aay aay njël benn baqara ak beneen laayee koo xam ne dinaa leen ko firil su kanamee mais muttaqiina moy ñi ragal yàlla bay neena yàlla ngi ciy sayyidna Seydina Abubakar alladheena yuminuna bil xaybi gaa yi gëm xaybu moy lo xamne ñëwagul nga dégg ko gëm ko mané chance la ndax sa bo wété lu ñëwagul lo xamne ne la xamo ci dara in lam takun mimman yusaddiqu ghaibahu la tunkiran wa takun salimal xaaji su nekk ne bokko ci ñay gëm la fàddu sax bu ko wéti ndax def def la fàddu xamo ci dara pour nga mucc Seydina Umar ibnul khattab bay neena mom lay yàlla di junj ci laye gi ndax kat ba mu gëmee yàlla Seydina Omar ba mu duggee ci lislaam ba imaan duggee ci dëndam fala lislaam commencé am doole ba bés ni ki tey ndax yonent bi moo ne woon allahuma ayidil islaama bi ahdil umar yi yàlla na nga dëgëralee lislaam kenn ci umar yi kenn ci umar yi mooy abu jahlin ak umar ibn alxataab umar ibn alxataab ba mu gëmee yàlla nit ñi suñ daan nodd dañ daan làqatu kenn du ñemee wax ci kaw mu ne déedéet su nekkee ne lañ nekk dégg la soxlawul làqatu nañ ko wax ci kaw mooy ñu koy woowee man azhara allahu bihi l islaama mooy ki nga xam ne yàlla feeñal na diine gi ci moom bay ba muy gëm yàlla jullit ñi 39 lañ fanweer ak juróom-ñeent moo leen def quarantième faral islam déparé ba bés ni ki tey moo tax Umar ibn al-Khattab yàlla may na lislaam ndimbal ngir moom suñ ko ko daan wax nag mu leen di wax déedéet man la yàlla may ndimbal ci lislaam pour wan la ne lislaam soxlawul kenn ku ñëw ci lislaam yow yaay am chance soo ñëwul teewul l'islam l'islam bay néne bañ rombe al imaanu bil ghaib te yépp ay bankas la yo xamné ne yaatu la lam ci tek moy ñay julli ñay saxal julli julli lu am solo la kon alxuraan texe la ñeel ñay julli ñu ne kan kan mo mom melo gi ci saaba yi ndax kullu ayatin nazalat alal muminina tajurru zailaha ila yawmi alqiyamati bépp aaya gu wàcc ci julli ñi ci jamono saaba yi day watat ci biir yëram ba bés pencum yàlla ay gaa ngi wax ko melni koka ba bés pencum yàlla tay ñu melni abou bakri ñongi ngi fi mu taqi ne siddiqiina yi ci jotay bi ñu melni sayyidna Umar ibn al-Khattab alladina yumina bil ghaib ñongi fi ba tey soo demee ba ca ñey saxal julli seen misaal mo ngi fi ndax sayyidna usman la yàlla di ñu ci li baye wax ci laye gog ndax mo daan taxaw wàcce kaamilu alquran ci benn rakkaam mooy witr ndax ku mokkaloon alquran kan kaana yusalli bil qur'ani kullihi fi rakatin wahida ba sax yàlla bàyyi nee ne aaya bi yàlla dox am man huwa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaayiman aaya googu li tax mu wàcc mooy Seydina Ousmane na Affan ñetteel bi nag mooy joxe sa alal loolu mooy suñu waxtaan tey ndax dafa am ñoo xam ne dañoo ci jamono gu metti gi courant daa yokku ndox daa yokku dépasse bi macha allah ndugg li yokku lépp yokk ci àdduna am ñu volontaire u génnee seen xaalis léeg dañoo am kuñ sopp ci yàlla indil ko xaalis bu joxe ci yoonu yàlla kon al infaq boobu yàlla mu jël daanaka mu jël na ko waaye firiwul daa mujjee moo tax mu mucc waaye maqaama ko kawe signification bi ci Seydina Ali ibn Abi Talib la ko bàyyi jox bàyyi nee ne Seydina Ali daan na liggéey ci jardin wu yahud benn yahud yahud bi di ko fay ñeenti dërëm par jour loolu nag lu bëri la ñeenti dërëm par jour ci jamono jooju ci seen dërëm yooya loolu tuutiwul su ñëwee Seydina yi dafa ñàkk mënoon na utiliser ñeenti dërëm yi waaye day jël benn dërëm bi sarax ko guddi bii mu sarax ko bëccëg bii mu sarax ko ñëpp a ngi gis bii mu sarax ko fekk kenn gisul waaw yàlla bëgg ci moom ba wàccee laaya gi allazina yunfiquna amwalahum bi leyli wa nahaari sirran wa alaniyatan xoolal ñiit joxe seen alal bu dégg bëccëg ci secret ak ci lu nëbb ak ci lu feeñ maanaam saraxe ko ci lu feeñ ngir ñaax sa morom koo xam ne macha allah bi daa xaw a dëgër mel ni waa ma féetee càmmoñ du joxe bu boobaa da ngay saraxe pour mu gis ko bu boobaa bu boobaa moom tamit mu mën a saraxe waaye saraxe moom soo ko ndëg bee la génn waaye soo xamee ne soo ko feeñalee dana am ko koo xam ne daawul woon joxe dana jéem a joxe mu nekkoon yàlla nee in tubdu sadaqaati fa ni imma hiya wa in tuxfuha wa tuutuha al fuqara fa huwa xayrun lakum waaye nee ne yii ñoo ko tontu ci faydu baay gii ci ñu toppoon ci ginnaaw baay am na muttaquuna am na muminuuna am na mu muqimu salaat am na tamit na ñay joxe seen alal joxe sa alal nag Cheikh Tidiane mandarga la nee na mandarga la ñeel déggu ci yàlla ndax alal dafa taq ci xolu doomu aadama nit ki su ko mënee dindi di joxe rek mooy fi ne alal bi fu muy dugg rek xolam gëm na loolu bëgg na loolu yàlla ñu yàlla boole ci ñeenti melo yi te nag te nag bàyyi li mu wax nii ñii ñoo ngi ci taalibe duñ ci musa dañ ba bés pencum yàlla danaa danañ waxtaan incha allah su kanamee ndax dafa mel ni waxtu waa ngi daw mais bàyyi nee na beneen laayee def ko tontu mooy summa awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil xayrat alquran aaya bi dafa continuer ba ne man ñooñu dinaa leen may jannatin yadxulunaha ay ajana yoo xam ne danañ ci dugg ñoom ñetti catégorie yooyu alquran nee ne man maa loo sama téere bi alladina gaa yi nga xam ne istafayna maa leen tànn min ibadina ci sama jaam yi xoolal ñu yàlla tànn xam na ñu yàlla tànn su nekkee ne yow yaay wax sooy tudd ñi yàlla tànn doo ci tudd ñooy tooñ seen bopp su nekkee ne yow yaay wax doo ci tudd moykatu yàlla doo ci tugg tudd ñi diggu dóomi ñi nga xam ne tey ñu def naka su dul noonu suba ñu góorgóorlu su nekkoon ne yaay tudd ñi yàlla tànn xëy na doo leen ci boole waaye yàlla ak yërmandeem ne man maa tànn ci sama jaam yi alladina stafayna min ibadina ñu ne ko ñoo ñooy ñan mu ne fa minhum bokk na ca ñama tànn fa minhum zalimun li nafsihi ka nga ne daa tooñ boppam saa bu xëyee ci naka su dul noonu lay xëy waaye man maa ko tànn man yàlla boole ko ci sama gaañ fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun am na ci ku dugg diggu dóomi xam ne xëy na mën na def naka su dul noonu tey waaye bu ëllëgee مدالي دبل باخ عسى الله ان يتوب عليه لولا القران وخا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه من نك ومنهم سابق بوكنا شي نيو باي نك سو ديغي الله بي ني موم شي ني بوك ام ني اندك موم تون سين بوك دو شي نيو لا تكتالو دو شي ني موي يالا تاي باخ دونتي نيو شي موم واي دي waaye bàyyi ñi muy tegtaloo mooy saabiqun nga xam ne bil xayraati mooy koo xam ne dafay njëkkante ci maqaama yu kawe ndax bu njëkk bi garaatu islam la ñaareel bi garaatu iman la ñetteel bi lihsaan la te bàyyaa nga ca lihsaan yéen a ko xam gën a xam bu njëkk bi maqaama farqu la ñaareel bi jamu la bu mujj gi mooy saabiqul nafsi moo nga ca jamul jami te xam ngeen bàyyi moo nga ca jamul jami bàyyi passé na farqu passé na jamu passé na moo nga ca jamul jami bu njëkk bi xam ngeen moom mooy sharia ñaareel bi mooy tariqa beneen bi moom mooy xaqiqa xam ngeen bàyyi moo ngi moo ngi dund ci xaqiqa ndax moo ne woon jamu shariati ila tariqa ma al xaqiqati al ura al wasiqa bàyyi nee na ba mu xoolee laaye ji mu xam ne moom ñooñam ñi xanaa mënuñoo passé kenn ci ñett yi il faut am kuy askan ci bàyyi ji def naka sudul noonu yàlla na ko yàlla gindi moo nga ca zaalimun li nafsihi waaye jannatin yadxulunaha waaw ba limaam Shaafi'i nee na waaw boobu moo gën a rafet ci waaw yi ñëw ci alxuraan yëpp ba mu daj ndax yadxuluunaha mooy ñett yi ñëpp danañ dugg àjjana waaw boobu yadxuluunaha soo koy irab yadxuluuna fiilun mudaaribun marfuun bi subuti nuuni wal waaw faa'il mooy faa'il waaw boobu moo boole ñett ñi ñoom ñett ñëpp alxuraan nee na yadxuluunaha danañ dugg àjjana Shaafi'i nee waaw bi gën a rafet ci alxuraan mooy bii daa buub xeetu yoon ci yàlla Muhammad yëpp tàbbal leen àjjana waaw jaroon yàlla suñu nee nii mu ne ah yàlla nee na kan moo leen tànn kon maandul ci ñoom dafa xam yërmandeen gi ñu toll moom yàlla moo tax moom mu ne man dama leen a tànn donte naka su dul noonu ak ñay jaxase mbir yi koo bëgg a ŋàññi ci ñoom bàyyi na la wa iyaaka wal iraada an kulli suratin ida rumta min sirril wujudi liqaahu moytu loo gis naka su doonu dëdd ko ndax yàllaa ngi feeñ fu nekk waxatuma la nag saabiquuna yi ñoom ñaan yàlla yàlla boole ñu si ñooñu